muy ay scandale wax naa sànq ne ànd defar Thiès bi ñu koy teg PDS mu ngi ci woon ak yeneen organisation ak réew mi te tey 2014 li fal Talla Sylla la dëgg-dëgg mooy Idriss Seck amu woon keneen ku dul Talla Sylla d'ailleurs bu ñëwuloon woon problème am ndax fekk na ñu caxat caxatee suuf si wax naa ko léegi ñoom Yankhoba Diattara Idriss Seck na ci pat ñun loolu taxoon mu mee ñu ndax dañ doon dénoncer li Diattara doon def waaye dafa mel na ci suuf moo ko doon jàppale te après on a compris que ñoom ñaar ñoo nekkoon complice tey dégg naa ñi ngi wax affaire conseil départemental li ma xam daal mooy Idriss Seck maire de Thiès Diankhoba Diattara premier adjoint ñoo saax saaxee suufu Thiès ñu dénoncé ko pelent leen dégg naa Diattara di wax dafa dafa plainte mais ñun ñoo ko plaintoon léegi nag li xew mooy tey Talla Sylla wax naa ko sànq dañu toog ñu ni ko Idrissa day dem tourner da ngay joxe un million mun ma waxal ak sa gars yi aw ma dërëm bu ma leen jox du ma jël alal maire di leen ko jox parce que Idrissa bu daan dem tournée da daan dem station ñu jël essence maire bi def ko ci oto yi man xam naa bu baax li ma wax bu daan voyagé voyage boo xam ne yoonu maire yi nekk ci day dem Saint-James ñoo ko daan fayal billet bi ci mairie bi alors ko demul en tant que euh, mission officielle de la mairie taalal lànk loolu ñu mere ñu toog UG ñëw fii di def audit ñu ne ko nëbbal yenn dossiers yi boobu sax mi ngi France nekk xaw a mu ne bu kenn nëbb benn dossier su fekkente ne ñoom ñu yoroon yëf yi wóoluwuñ seen bopp man duma ma làq kenn faralu ma kenn waaye làqu ma kenn gars yi mere ko Mamour Ibra invité ko laaj ko ci affaire suuf bi ndax ministère no Alassane Sall moo ko interpellé woon wax ne maire dafa war nekk partie civile ndax adjoint au yi porté woon plainte muy ñun ñii à l'époque ak ñoom dene bak si di njëge maire dafa war a constitué wu partie civile waa ji laaj ko ko mu ne ko man damay constitué wu partie la ville de pour ñu leeral suufu Thiès fan la jaar mën ko bu ñu gëstoo ba wane ay firnde ni Idriss Seck taq na ci est-ce que di nga porté wu parti bi mun ko ku mu mën a doon boo ci taqee dinaa porté wu parti bi ndax man askanu cees ñoom ñett te alal bi ñuy luubal alalu Thiès la suufu Thiès la dañ ko war a leeral Idriss Seck mere ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii ay tappale la ay njublang yu ñu ko bëgg dugal mu lànk te Idrissa wax naa leen ne ku lu wax euh, kuy wax déet du ànd li mu bëgg mooy ku muy manipuler ku muy tënk ku muy def l'armée te xam nga ne Talla Sylla c'est une grande personnalité de ce pays kii wax na ko léegi Astou c'est l'un des fils du Sénégal qui s'est sacrifié le plus pour pour pour le Sénégal dem ba nattee ñàkk bakkanam amatul vie de famille amatul dara ñu fal ko maire Thiès c'est le maire boo xam ne le plus transparent du Sénégal audience publique kan moo ko ñemee moom moo ko ñemee Talla la mooy dox ci mbedd mi yenn saa yi otom paat essence te pourtant am na ay litres d'essence wax na ko ku néew doole tey Idriss Seck ak li ko Thiès defal amul dara lu muy def parce que maire na Talla Sylla mënu koo manipuler mu ne day budget bloqué budget mairie bi père de famille toog pendant 5 mois fayekuwul kooku buñ la joxee Sénégal lan nga koy def boo yëngu loolu il n'est pour Idriss Seck di jàll si yooyu. Euh, Youssou Diop. conseil politique conseil politique et secrétaire per secrétaire permanent du du mouvement Fal Askan Wi dafa am loo xamante ni tey. je pense que sénégal yi dañ ko war a ràññetle ñu wax leen ko parce que qu'il faut fois aussi restituer les faits historiques tels qu'on les a vécus je pense que depuis deux ans et plus de deux ans d'ailleurs le maire Talla Sylla a été victime d'attaques d'injures yoo xamante ni Idrissa Seck moo nekk ci ginnaaw di yabal ay nitam ñuy dem ci rajo yi di dem ci tele yi di ñëw ci réseaux sociaux yi di saaga di wax meeru Thiès ak si la loo xamante ni nit ku baax du ko def mu suñu jug yëkkati suñu baat suñu wax parce que daf ñu war daf ñu daan toujours wax dal leen dal leen dal leen ñu dal mais dafa am loo xam ne nag wolof daf ko wax daf ni lu ëpp tuur et moi je dis aujourd'hui fii devant la presse que Idrissa Seck excelle dans l'art de la manipulation, dans l'art de la victimisation, dans l'art de la démagogie et dans l'art de la rhétorique politicienne mensongère. ci la naan ay nitam moom la leen jàngal moom la leen di sant résultat yi ñu ngi koy gis ci meeru Thiès blocage depuis deux ans résultat yi ñu ngi koy gis parce que waa réew mi amuñu benn argument politique valable bu mën a opposé Talla la sinon nekk ci réseau yi di ko saaga et trop c'est trop bi ñu njëkkee tàmbali dañu utiliser le mot trahison avant les élections législatives ils ont parlé de trahison Talla est un traître Talla ceci Talla cela loolu ñu doon wax yaakaar nañ ni wax jën fi wax fii tontu na loolu mooy ko bu trahison amee haute trahison am na kon te ki fi def haute trahison mooy Idrissa Seck koo xamante ni tu as été le plus jeune directeur de campagne de candidat à la présidentielle à 28 ans koo xamante ni Abdoulaye Wade moo la fi fayal say étude nga jàng ba dellusiwaat mu def la ministre du commerce ngay génne ay autorisation exceptionnelle de d'importation de véhicules di sàcc di wuruj moom moo ko fi def Talla Sylla musul jaar foofu loolu il faut APDS xam ko il faut sénégalais xam beneen bi moom moo jël Ablaye Wade jox ko tous les pouvoirs ba jox ko xaalisu réew mi sax dafa ko réew mi mu di ko enregistré ak di lëjmët état de santé bi loolu sénégalais yi waruñu ko fàtte mm-hmm. moom rek Idrissa Seck laa wax moom moom moo taxawoon taala en 95 94 95 si je me rappelle ni ko Idrissa ñëwal nga militer à Thiès mu ni ko Thiès n'est pas dans mon agenda moom Idrissa Seck moom rek moo taxaw fii ànd ak coalition ñu xeex ba gagné au local de 2014 mu wor waa PDS parce que le poste de président du conseil départemental du premier vice-président du conseil départemental n'était pas pour réew mi moom moo ko def kon kooku je pense que buy yabal ay nit ñuy attaqué koo xamante ni 14 fois à l'âge de 14 ans la dugg ci politique mu 1980 ah 14 fois la def prison mësul wax damaa feebar mësul wax damaa am hypertendu mësul wax damaa hypotendu mësul wax damaa diabète il les a assumés c'est quelqu'un qui a toujours assumé de 80 à 88 mu assumer tous les combats de la jeunesse sénégalaise en 92 mu assumer fii la création de la jeunesse pour l'alternance wax ni l'alternance est la respiration de la démocratie kon c'est il a été le premier théoricien même de l'alternance il a théorisé ici le concept de vote utile pour l'alternance je vote utile moom Talla Sylla moo ko musul nangu dugg ci gouvernement il ak il a refusé un des postes de gouvernement en 2000 ni man sentinelle de la de l' alternance la moom Talla Sylla boo ko fi def moom demul ca kër Khalifa Sall jaxase Bamba ak Barthélemy Diaz rien que parce que dafa bëgg entrevoir bu yàgg que Khalifa Sall bu ñu ko tëjee ma mën a potoxlu pour jël ay nitam. Hmm. moom Idrissa Seck moo ko def. Hmm. kon waa réew mi ils n'ont aucune leçon à donner. et désormais nan je bien désormais n'en déplaise à leur mentor pour chasseur de rang perdu qui qu'il a perdu depuis l'éternité n'en déplaise à Idrissa Seck et sa cohorte de sbires de charognards qui nous parlent chaque jour de cadavres. si un cadavre si Talla Sylla est un cadavre politique cadavre bu demee ba yëngal ñiy dund kon kon ñiy dund war nañoo seet seen bopp. cadavre bu demee bay yëngal ñiy dund kon Idrissa Seck miy dund moom mi dul cadavre war naa seet boppam. Talla Sylla la un homme de valeur il fait son chemin. C'est un homme de vérité et la vérité ne pénètre et fait son chemin que dans les esprits honnêtes. qui méritent qu'on les confonde avec ceux qui falsifient à plaisir le courant de l'histoire. Idrissa Seck est un falsificateur chaque fois que ñu ñoom ñu attaqué ñu dinañ leen wax lu ëpp li ñu wax. dinañ leen dinañ rétablir la vérité.